mbir xewee ci dëkkam dafay prononcé wu ci waaye nag fu mu toll am na problème boo gis am na solution xëy euh, mën naa am ne jotee ko. c'est c'est des c'est des c'est des niveaux quoi na tout ça en fait ça plaît congloméré de congloméré mu nekk des gens ñoo xam chargés globalement de la sécurité parce que comme je dis les sapeurs ne sont pas partout cest si quelqu'un sàcc sax bay waaj a il faut quelqu'un mu dem récupérer ko. Comme je dis, on est dans un niveau de paradoxe. Ça, il faut quand même que, il faut, il faut quand même, il faudra le souligner. Même souligner, au moins, ils auront la présence. Ils pourront faire la sensibilisation. Si par extraordinaire, quelqu'un se noie, il est médicaux. Si éventuellement, il y a un sifflet, ils ne sont pas même si nous avons gars qui sourit, ils peuvent siffler un peu. Siffler un peu la, faire de la récolte, voilà, revenez, etc. C est, c tout ça, c'est. il y a des dispositions yoo xam ni dañu interdire la baignade am ay dispositions yoo xam ni dañu l'accès est libre cette relation lañu war a xoolaat disposition yi yàgg yi nga xam ni eh, xam nañu c'est interdit ku fi nekk dañ la war a sanctionner mais kon da ngay sanctionner ba àddina tukki mais mën loo ko tere on va revoir tout ce dispositif la c'est en fin de compte qu'est-ce qui est profitable qu'est-ce qui bu boobaa rek dañuy il faut il faut un nouveau départ un nouvel élan mais li fi nekkoon mënatu fi nekk dégg naa léegi ñu ni il faut enlever les gargotes ak yooyu mais on va buñ ci àggee bu fekkee si il faut le faire on va le faire mais nañu nañu xool ni il y a des grandes personnes comme moi bu ma jógee tour de te le soir fii laay ñëw doxantu si ci jël jën ci jël nangam kii jël nangam c'est c'est c'est Malika qui s'urbanise il faut ñu xam ni tamit euh, loolu ñu boole ko ci Euh, moi, je suis prêt à recruter des surveillants de plage. Je ne veux pas dire maintenant des, des, des, des maîtres nageurs parce qu'on va ma dire que c'est interdit, mais cette interdiction, on va le revoir. On va revoir ça. Parce que fi mu nekk daal ñun ñëpp dañoo jaaxle comme mardi la ñuy toog ñu toog ku nekk réfléchir on va mettre sur la table loo xam ne lu yenu maanaa ñu adopté ko li ci des ñu seetuwaat ko. alors tey ñu waxoon nañu ñëw euh, nuy si leen mais surtout massawu leen ci li nga xam ni xew na fi fan yi passé muy euh, véritable catastrophe bu nga xam ni am na fi ca ay xale yu ndaw ñàkk ci seen bakkan ci ndox mi mais it ñëw fi pour euh, xool ak yéen des mesures d'urgence yu nga xam ni bu ñu ko jëlee xëy na mën nañu mën na wàññi ce phénomène là su ko dul jeexal tàkk euh, yëg nga ni woote nañu benn ndaje bu am gouvernance mardi pour gën a xuus ci waxtaan bi waaye fii ak mardi lan la ñuy mettre en place mettre ko en œuvre ba ñu romb weekend bi ndax wax nañ ñu ni weekend bi xëy na ci la affluence bi di gën a bëri alors euh, fii ci Malika nag place bi ñuy seen dafa bokk ci place bi nga xam ni dañu tere ku fa sangu maanaam géej gi waaye terewuñu ko dem ci plage bi ah boo nee nag tere nañu dara da fay def loo xam ni dana wane ni d'abord ni tere nañ ko waaye teg fa ñu nga xam ni dañuy fàttali tere nañu loola. moo tax les mesures d'urgence waxtaan nañ ci sànq ak euh, waa police waxtaan ci également ak sapeur pompier mais ma ak sa collègue maire yi parce que jaar nañu golf yaar nañu yëmbal noor waxi naan yow yaay ñeenteelu maire bi nga xam ne daje nañu ak moom pour wax leen ni ñun pare nañu incha allah dès demain à partir de ce samedi ñu renforcer le dispositif de surveillance ak waa polis mais également daf fi benn dispositif sapeur pompier bu nga xam ni xëy na dina jàppale askan bi ñuy xaar nag ci maire yi également parce que loolu mooy tax euh, liggéey bi am solo que maire bu nekk nga recruter ay ay surveillant de plage surveillant de baignade ñu nga xam ni vraiment bu ñu ñëwee ay xale la ñuy doon euh, kii sapeur pompier sax mën defal formation ngeen wutal leen ay gilet ñu xam ne ay ndawal maire bi lañu bu ñu ñëwee ñuy wax ak xale yi di leen di canaliser di leen di surveiller ku nar dugg ñu tere la. Euh, ku nar a euh, def loo xam ne waroo koo def tam ñu taxaw jàppale la donc ñi ngi xaar loolu ci maire yi mais itam di xaar ci maire yi fépp fu nga xam ni tere nañ fa ku fa sangu ci géej gi ñu def fa ay panneau pour wax ni fii tere nañu ko fi sangu bu ko defee xale yi di ko gis di ci bàyyi xel ak euh, yeneen yu nga xam ni ñu ngi ciy xalaat mais ci yéen seen wàllu maire yi comme yéen bokk place bi yëpp wax nañu également que muy yow muy nan muy yëmbal sud muy golf ngeen def benn genre jonction ba lépp lu nga xam ni tey yéen a ngi ciy liggéey ci protéger xale yi ngeen ànd ci maanaam li ñuy wax intercommunalité booba mais ci wàllu surveillance des plages ci wàllu euh, vraiment euh, prévention les des cas de de noyade déjà am na benn proposition bu nga xam ni maire golf wax nañu ko léegi mooy moom dès demain dina louer matériel sonorisation def ko ci place bi muy wax en continu ah xale yi fii bu demee fi sangu nangam ndangam lépp lu nga xam ne daal mën na tax ba xale yi du ñu xuus dugg ci ndox bi donc loolu itam idée bu baax la ñu koy rafetlu maintenant li des mooy muy yow muy sa collègue maire yi vraiment ngeen préparé wu bu marde ngeen ñëw gouvernance ak un plan d'action bu nga xam ni da ngeen ñëw ngeen présenté ko bu ko defee également sapeurs yi techniciens yi préfet yi ñëpp ñu waxtaan ci ba ñu déggoo ci nan la ñuy gérer situation yu mel nii fii ba vacances yi jeex déjà vacances yi commencé gul li fi am dégg nañu ko bu vacances yi commencé léeg day gën a bëre euh, ñuy fréquenter plage yi moo tax euh, daal euh, dañu ñëwoon tey gannaaw bu ñu leen jaalee massawu leen bokk ak yéen métti bi fi xew mais surtout gën leen ñaax mais rafetlu également liggéey bi ngeen di liggéey je crois que aussi il faut ñu reconnaître ko Euh, maire yi taxaw nañu seen wetu population ñi ngi góor góorlu que moyens yi demewul noonu mais vraiment yéen a ngi def li ngeen mën donc loolu aussi ñu gërëm lañ sant leen ci. maintenant gën leen ñaax nag ngeen ànd ak ñun ànd ak force sécurité yi ba lépp lu nga xam ni responsabilité bu ñu incombé ci mbir mi ñu assumer ko ba mu mët sëkk bu ko defee xale yi nga xam ne ñu ngi des ci ndox mi mu wàññeeku. loolu daal moo doon tànk yi ca gëm nañ ni danga ñu ci jàppale. gëm nañu itam sëriñ bi dina ci def bay waaram mais les leaders d'opinion jeunes yi waa ODCAV ñëpp vraiment ànd pour lii fi am mu bañ fi amati incha allah loolu daal moo doon tànk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam